joué nañ match bi gën nañ ben sortir ñu nag vision a ah, joué nañ match bu difficile parce que dañoo demone aller ñu dóor leen 6-2 ñu joué à retour ñom ñu dóor ñu 4-2 do na match bo xamanteni ni xawoon difficile lool ci ñun ci ben côté parce que mën naa ni suñu joueur yi xaaj yëpp dañoo blessé won parce que ñoo ngi dem du jouer ji deux remplaçant la am te loolu day xaw difficile ci biso cœur mais géré nañ ko nak bam nek 4-2. non si joué na ci bu baaxa baax. parce que boo la plupart moom bu joué sax lu mu miti miti moom dina dugal deux bi joué na ci moom bu baax a baax wax dëgg neex yàlla moom. dinaa ne mas demee bi incha allah moom victoire rek moo léegi mën a boo boolewaat ci course bi parce que actuellement ni vision rawee nañu benn benn point bu fekkee nag nañ match demee bi ak prochaine match bi mun naa am ñu nekk deux gën si meilleur deuxième yi mais ñun l'essentiel daal ñun ñu gagné rek moom moo ñu mën a dimbali incha waaw match yi passé boo euh, joué suis euh, contre vision ou vision moo am euh, ndam parce que on n'était pas assez bien préparé je veux dire parce que mm, comme phase aller on était sorti avec euh, trois victoires donc match bi match passé vision donc nous gënon a préparé voilà donc ben match rek lañ soxla pour pour qualifier donc voilà pour que ya ngi gaay ni ñu entraîner on va faire le tout pour pour remporter donc ce match afin de pouvoir qualifier pour les les playoffs. championnat moom c'est bien moom waaw waaw bi sa kër moom lu baax la moom quoi ren laa koy doog découvrir mais match yi passé moom ay match yi difficile la ñu joué mais suñu man sama premier match bi may door a fubal ñoo dooroon 3-2 mais match bu difficile la ñu fubaloo suñu match bi.